mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi waaye di jaajëfal la jeunesse sénégalaise gàcce ngalaama yéen jeunesse sénégalaise ñoo ngi nuyu suñu kilifa yi ñoo ngi nuyu le clergé catholique ak mbooleem seen njaboot yi nekk ci biir Sénégal ñoo ngi nuyu le bois sacré ak mbooleem seen njaboot yi nekk ci biir Sénégal waaye ñoo ngi nuyu mbooleem njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir Sénégal muy association islamique yi muy turuux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi Sénégal naxante bi fi nekk moo war a jeex le 23 mai fii lañ daje woon wax ni askan wi bëgguñu lu bon ndax seen ndono seen ndono lu baax la ñu wax ni agenda pro LGBT bi ñuy doxal benn pàcc la benn ci gis-gis bi nga xam ni dafa am ay nit yu jóg ci àdduna bi am une vision globaliste jàpp ni ñoom ñoo am xam-xam ñoom ñoo am dayo ñoom ñoo am taxawaay ba seen gis-gis yooyu ñëpp dañ koo wara a te topp ci ñu ni leen senegaal moom du bokk ci loolu Sénégal du ci bokk tey ndax Sénégal bokku ci woon démb te Sénégal du ci mës a bokk agenda bi ñuy wax nit ñi nañu déglu bu baax ñun agenda la ñuy wax boo xam ne ñoo ngi koy doxal ci turu askanu Sénégal est-ce que xam ngeen ni réew mi lu fi man di dox est-ce que xam ngeen ni ci seen tur ak sama tur lañ koy def est-ce que xam ngeen ni lépp lu ñuy def ci as ci réew mii dafa mel ni askan wi lañ koy defal itam ndax principe bu gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple la kon ndeke lu ñu fiy def lu mu mën a doon képp ku toog ni sama yoon nekku ci xamoo li xew man yéen gàcce ngaalaama la jeunesse sénégalaise particulièrement ak jigéen ñu am jom ñu am ngor ñu am fulla ñuy toog yéen jigéenu Sénégal gàcce ngaalaama seen taxawaay rafet na dem seen taxawaay rafet na tey te incha allah seen taxawaay day wéy di rafet yeen xam ngeen ni du ngeen jur ay góor jigéen yéen juru leen góor jigéen man ni yéen jigéenu Sénégal ëpp ngeen lool yéen xamu leen ak góor jigéen juru leen du góor jigéen yaru leen ab góor jigéen kon ñi am xalaat boobu nañ ko delloo fa mu jóge woon ñi am gis-gis boobu nañ ko delloo fa mu jóge woon man ñi am yitte jooju ak yéene jooju nañ ko delloo fa mu jóge woon dañuy wax question de droit mais droit finalement droit mooy lan et puis droit selon kii walla ñun dañoo doon ay nit ñoo xam ni dañuy toog rek pour consommer ay nit toog ca àll ba ñëw ni ñu daal àq ak yelleef mooy lii àq ak yelleef yow mi koy wax am na noo ko gisee ak noo ko dégge waaye ñun Sénégal am na nuñ ko gisee am na ñu ko déggee la France est souvent citée comme étant un pays de liberté te pourtant bu ma fa demoon ni dama bëgg ñaari soxna ñun la tere nañ la ko ana man sama àq ak yelleef ana samay droit kon bu ñuy wax ay droit inaliénable de de l'homme nañu xam ni ba ñu koy tënk ma ni chers sénégalais chers africains booba boolewuñ ñu si mm-hmm. est-ce que da ngeen a fàtte ni 1948 bi ñuy def la déclaration universelle des droits de l'homme booba xaw fande waaye suñu réew yi ñun ñoo ngi ci kilifteefuk tubaab bi boolewuñ ñu ci ndax ba ñuy wax homme nit mën naa doon ku nekk waaye nit ñu ñuul ñi bokkuñu ci kon lan moo waral ñu bëgg ñoo ñëw imposer ñu un agenda boo xam ni ñun bokku ñoom gis-gis boobu léegi monsieur le ministre mi ngi may dey ni ma mais au noo de la diversité culturelle mais kenn ku ci nekk am nga sa démb kenn ku ci nekk am nga sa aada kenn ku ci nekk am nga say valeur mais lan moo waral ñu jàpp ni ñoom seeni xalaat ay xalaat yu universel la seeni valeur valeur yu universel la seen gis-gis gis-gis bu universel la ci fan la tege ci fan la tege réew mii kenn du ko delloo ci buumu njaam du am mukk lawoon wonni na lawoon na lawoon wonni na lawoon wonni na na lawoon wonni kon agenda bi nga xam ni ba ngeen seetloo ba ànd sàmm jikko yi jógee ba léegi amul ci senegal gi ku mas a taxaw ni agenda bi amul amul moom koñ ku ñu wax da nga naan ñu sa sa weer yu dëng yi mbaa sa sa dàll wu nangam wi waaye kenn ku mën a contester agenda bi amut kon agenda bi existé na waaye bi mu existé it dafa dem ba Sénégal nangu ko di ko doxal depuis 2016 dugal nañ ko sunu constitution est-ce que xam ngeen ni mi ngi ci constitution bu Sénégal ma ni mi ngi ci constitution bu Sénégal danaa ko expliquer faram fàcce ko. dafa am benn journaliste laaj ma ni ma non alinéa 3 bu article euh, bu article 319 bu code pénal dafa wax acte contre nature léegi jàpp leen ni acte contre nature bi nu koy jël ci 1966 bu 12 février 1966 boobu acte contre nature góor jigéen ci la bokkoon waaye bi ñu demee ba 17 mai 1990 ci jataay boo xam ni ñeen fukki réew ak ñett ñoo ko séq te senegal bokkoon na ci ñeen fukki réew ak ñett yooyu ñoo wax ni ngóor jigéen bokkatul ci acte contre nature loolu senegal bokk na ci ñi ko wax te xam ngeen loolu na la demee par rapport ak suñu loi bi mi ngi mel ni ñu ni tey jotaay dafa am benn sees moo fi nekk benn toogukaay waaye préfet dana ñëw gouverneur dana ñëw président dana ñëw te benn toogoo fa nekk sous préfet dana ñëw ndax sous préfet dana toog ndax sous préfet dana toog lan moo tax du toog kon luy mooy sew sew bi nu jàpp ni askan wi dañuy nelaw mooy loi bii ma wax loi ordinaire la loi ordinaire loi ordinaire loi organique moo ko tiim mooy kilifaam loi organique loi constitutionnelle moo ko tiim ma nga ca kawam te mboole seeni loi yooyu yëpp am na lu ñu wax loi supranationale moo tiim mbooleem lu ñu voté ci Sénégal te lii may wax nii loi supranationale la constitution bu Sénégal dafa wax nii les traités et conventions régulièrement signés et ratifiés ont de leur publication une autorité supérieure supérieure supérieure à celle des lois kon lu Sénégal dégganteeti ca bitim réew moo tiim loi yi mu fekkoon ci biir réew mi bu fekkee jaaral nañ ko ci procédure bi te ñañ ko seqal tamit doxal ko kon loolu moo leen di wax ni li ma njëkkoon a wax ci sama kàddu naxante bi dafa doy dañuy gëmloo ni ñun ñoo moom réew mi waaye moomuñu ko suñu falatee suñuy député ba ñu dem assemblée nationale voter une loi ñu sakk ab délégation jël ministère de la justice ministère des affaires étrangères la direction des droits de l'homme du Sénégal des ay membres ci cabinet bu président de la république ak ñeneen ñoo xam ni danañ bokk ci gouvernement bi bu ñu demee ba diisoo akub tubaab la xaatim moo tiim li suñuy loi voté woon li suñuy député voté woon kon léegi ana ñun suñu moomeel yéen jeunesse bi laay wax ana sunu moomeel kon kon nekkate ay nax moo nekk ci réew mii te naxaate yooyu dafa war a jeex naxaate yi yemul ci lii mboole seen li ñuy dégg lépp xam nañ ni Sénégal majoritairement ay croyants rek ñoo fi dëkk musulmans et chrétiens mboole seen ñoom ñëpp ñoo bañ lii ñoo bañ lu bon lii waaye xam ngeen ni Sénégal seetaan mi fi am la jeunesse sénégalaise am ngeen une responsabilité historique historique ci tënki buum yi nga xam ni lanu njoñe askanu Sénégal mboole seen jullit ci ak katolik yi nekk ci réew mi amul kenn ku ci sa diine nangu ni njaaloo baax na amul et pourtant ci turu askanu senegal lañu ñu mayee ni ak li Sénégal di représenté ak li fi nekk ci diine muy jàngu bi muy diine lislaam ñu ni yàlla de nee na njaaloo baaxul bu leen ko jege ñu daal ni kon dañuy jël benn principe ci turu askan wi képp ku toog fii ci nga bokk ku fi toogul ci nga bokk képp ku am carte d'identité nationale ci nga bokk moo tax combat bi ñuy mënee nit ñi sax dañ koo xamul ma ni ku am carte d'identité nationale ci nga bokk ku am certificat de nationalité ci nga bokk ku am wenn kayit wu lay wane ni Sénégal doomu Sénégal nga ci nga bokk ñuy kon ci turu askanu Sénégal yow yàlla sa ndigal loolu delloo nañ la ko yow yàlla sa ndigal loolu delloo nañu la ko may nañu sañ-sañ jigéen ju ko man ju ko bëgg kaay nga jaay sa bopp ñu defal la kayit wi nga téye te seetaan dong moo tax lii am ba jigéen ci tey sañ naa dem jaay boppam nangami yoon bis bu nekk bu ko neexee yor carte woowu ko askan wi jox mu jaay boppam xam ngeen lu muy neexale askan bu at mi deewee bu at mi jeexee bu at mi matee danaan njaaloo naa benn nangam nangam mangam ba x fois kon yoreel naa askanu Sénégal x franc multiplié par x fois yooyu dem versé ko trésor public day fay lépp ko alal jooju kenn ku ne fii ku ci mucc amul danañ ko def ci sénégalais yi fay ci bor delloo ko ci biir sénégalais yi te am na boroom xam-xam bu mag bu waxoon ni ku lekk lu xaram def lu xaram ku lekk lu ñu sib def lu ñu sib ku lekk lu dagan def lu dagan ma ni lii bokk na ci caaxaan yi nekk ci réew mii te la jeunesse actuellement est consciente de ces enjeux la jeunesse jóg nañ taxaw tem ku yaakaar ni réew mii naxe ak layam layam yi dafa nekkoon day wéy ma ne nax nga sa bopp lawoon woon na lawoon woon ni na lawoon woon ni na gis ngeen alal jooju bu ñu ko defee ba noppi yamuñu ci xam ngeen ni carte yi dafa aram ñëpp a ko xam waaye est-ce xam ngeen ni am nañ tool boo xam ne ñun Sénégal yëpp ñoo ko bokk te carte lañ cee def la loterie nationale sénégalaise, l'ONAS, appartient à l'ensemble du peuple sénégalais. D'ailleurs, appartient à la nation tout entière. ña nekk ca bàmmeel yi ci lañ bokk ñii dund tey ci lañ bokk ñii xalsata ñëw ëllëg ci lañ bokk kon gis ngeen galgal bi ñuy def kon ci ñu rekk toog yaakaar ni dara xewul te fekk na am na lu xew dama ne caaxaan yi ne ci réew mii dafa doy ginnaaw askan wi ñoo moom kay nañu fexe ba doxal li askan wi bëgg dama ni tey ñun bu ndaje woon fii kenn nit dong taxaw fi du tere li ñu bëgg wax danañ ko wax parce que c'est consacré par la constitution sénégalaise rawatina ba nga xamante ni kilifa yi ci réew mi yëpp ànd na ci rawatina ba nga xamante ni li yokk yaakaar di ko dëgëral te combat boo ko gis xam ni loolu combat boobu ca kanam la jëm muy jigéen ñii ak ndaw yii allahu akbar allahu akbar allahu kon ñoom nañ xam ni loterie national sénégalaise muy tool boo xam ni fi may daanele sama kàddu fi may daanele moom laa wax léegi nee naa askan wi yéen wàcc ngeen li yoon maye woon def nañ ko jaar nañ ci yoon ay député porté nañ ko déposé nañ ko juróom-ñeenti nit juróom-ñeenti nit décidé nañ ni ñoom ñoo tiim yoon jalgati nanu yoon ndax xeeb nañu suñu xalif généraux yi xeeb nañu suñu amir yi xee xeeb nañu jàngu bi xeeb nañu bois sacré bi xeeb nañu une importante frange de la société civile xeeb nañu ndaw ñi xeeb nañu jigéen ñi waaye xeeb nañ te doy dal askanu Sénégal juróom-ñeenti nit ñoo ko décidé jalgati nañ yoon ñetti yoon jox seen bopp sañ-sañ boo xam ne yoon joxu leen ko alinéa 1 bu article 60 bu règlement intérieur dañ ko jalgati ndax boo jotee proposition de loi da nga koo war a yëgal assemblée mu constaté dépôt bi nga bind ki nga xam ni moom moo la andiloon proposition de loi bi xamal ni ko yëgle naa ko ba fii may wax ak yéen defuñu ko alinéa 5 bi dafa wax ni amendement ak proposition de loi bu député def ñoo ngi koy sañ a gàntal ci kaw mu am insidence financière maanaam day soxla xaalis ngir ñu mën koo doxal wala mu gën a yokk li réew mi tegoo woon wala boobu mu am loo xam ne da ko ci takk yii may wax dara amu ci ndax dañuy modifier disposition boo xam ne amoon na ba pare kon ñoom jàpp nañ ni seen jëmm ak seen taxawaay moo ëpp doole yoon askanu Sénégal amuñu solo moo tax liñ leen yóbbuloon nag ñoom delloo nañu ko léegi nag lan mooy solution bi ana lan mooy solution léegi nii ñun réew ko taal réew mii duñu fitna kon ana lan mooy solution bi ana lan mooy solution mooy yenn département yi fi teew tàmbalee ci département bi ñu taxaw muy département de Dakar ba ca département bu Oussouye ba ba may àgg Bakel ba ba ngay dem saara Saraya ba ba ngay dem Matam bàyyiwuma benn département ak yi nekk ci diggante bi nga jaar Medina dina Fula ba dem Vélingara ba ba ngay jaar Tamba gi ñu doon tudd léegi dama ne yéen jël leen seeni responsabilité ndax xam nga lan yàgg nañ noo nax ci loo xam ne tegewul fenn ndax ñàkk ñoo nawloo kon su ngeen delloo seet leen ci seen biir ay nit ñoo xam ni ñoom ak yéen yéen a bokk lenn li ay nit ñoo xam ni duñu leen war mukk te xeebuñu leen ay nit ñoo xam ni xam ngeen seen xam-xam ak seen taxawaay ak seen jikko yu rafet ngeen fab leen teg leen ci assemblée bee ngir bu ngeen leen waxatee ñu dégg leen loolu responsabilité département yi la waxuma man nag ngeen jël ma déedéet dama ne dellu leen ci seeni i département laa wax ngeen wax ak seen i askan bàyyi yóbbante bi wokkal ma wokkal ma wokkal ma te saafarawul da wokkal sa bopp waaw wokkal ma wokkal ma wokkal ma te wokkal sa bopp ma ni wokkal ma wokkal ma wokkal ma saafarawul ma ni wokkal leen seen bopp wax ji lii kese la réew mi ñëpp ko bokk xam nga dafa am nax yi ñu defoon dem leen ci article 28 bu constitution bi réew mi kenn mënu koo jiite te jàngoo français mais lii c'est extrêmement grave maanaam réew mi jàpp nañu ne Alaaji Abdou ab koo yor réew mi jàpp nañu Cheikh al Islam mënu koo yor réew mi jàpp ñi Sëñ Saaliu Mbàkke mënu koo yor réew mi jàpp nañ ni famille njegeen mënuñu koo yor lew na ñeseen Ceneba Njaasaan Laayeen mboolem Medina Gounass ak mboolem ëttu diine yi nekkoon fii famille sëñ Abbas Sall ak ñëpp bàyyiwuma kenn jàpp nañ ni ñooñu fi nu jaar ku fa jaar mënoo yor am réew moo tax ñu def ci disposition article 28 bi nii kenn mënta doon candidat à la présidence de la république ki nga xam ne yaay décidé yor kàddu réew mi yor alali réew mi te jàngoo farañ français man koo wax mën koo bind ba noppi it man koo lire sawar lii couramment parler et la le français ma ni lii mooy botti gi nekk ci réew mi te loolu jeex na fi lu mu leen jaral dana nu ko jaral ma lu mu leen jaral dana nu ko jaral la woon woon nii na la woon woon nii na la nii na askan wi réew mu ngeen gis ci àdduna fa mu toll tey jii aw askanam ñoo ko melal noonu li ñuy wax indépendance bañ ko amee ba tey bañ ko amee ba tey walla bañ waxee ni am nañ ko ba tey kon bañ waxee ni am nañ ko ba tey waaw nga jël kenn rek te la nga bëggoon lépp sottiwul waa léegi kon ndax jotul it ñu boole ci ñooñ daara ma ni ndax jotul it ñu boole ci jàngu bi ndax boo jotul nag ñu boole ci ñi nga xam ni jàng nañ te ñu yar leen ci diine wala ñooñu dañ leen di.